wasalaatu wasalaamu ala asraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu seen mbokkum taalibe Cheikh Ndiaye Gana fas yéene dikkaat ak yéen ci sunu ñaareel bi jataay ci jaar-jaari xaadimu rasul fi xidmatil xadim di siyaare bu baax sëriñ moom ñing mi ñu àndal liggéey bi ba tey Cheikh Mouhamadul Amin Diop moom sëriñ Ahmadu Diop moom dagana di wax ne sëriñ Tuuba xaadala wallahu maxtaarala ko nag bi mu matee tàmbali jàng alxuraan la ko waay juram jël jox ko nijaay lenreem muy sëriñ Mouhamed Bousso moom Mouhamed mu tàmbali di ko jàngal ba mu dëgëree ba yeewu tuuti ci xaraf yi la ko jox koo xam ne nijaay la ci moom ak soxna jaar yi itam muy tafsir Mbàkke Ndumbe moom Mouhamedu soxna moom maam maaram mi ma tuddoon ci ginnaaw moom nag moo bokk ak soxna astawaalo mbakke mi ndeyi soxna jaara ndey ak bàyyi ba mu nekkee moom itam dara nekk mbakke noor bu nawetee mu nekk jolof li ëpp itam bi muy faatu moom tafsir mbakke numbe sëriñ bi jege naa wattu alquran Cheikh Mouhamadul Amin Diop moom Serigne Ahmadou Diop nee na am na góor gu ma nettali na ma sëriñ bi moo ko wax ne bi tafsir di faatu booba la taj na la toll woon mu daal di dellu si ci Serigne Mor Anta Sali radiyallahu anhu di farru ba mokkal bu rafet wérlu itam ci ñuy wérlu boobee. lii lépp nag ci wetu sëriñ moor la woon ndax daawu booba sëriñ maam moor jaara radiyallahu taala anhu daa nekkoon ci wetu dëkk yi nekk foofa ci kenn ci ñi nga xam ne ñooy wérlu boobee léeg-léeg mu ñëw am weer wala ñaari weer doola a jël booba ma nga saalum ca jamonoy mabba moomu nga xam ne moo doon jihaad ndax Serigne Mor radiyallahu taala anhu ak waa dañoo àndoon ak moom ak ñooñ jolof ak li ëpp itam ci ñooñ bawal ba mu faatoo nag lañu dellusi sëriñ moor Mor Anta Sali itam dellu si ànd la Lat Joor nijaay jooja des fa akum njabootam sëriñ bi itam des fa ngir di jàng xam-xam tàmbali jàng ci baayam mu ndaw bu ñuy wax sàmba tukkuloor ka doom la ci baay ju ndaw ci sëriñ moor anta sali radiallahu taala anhu ba jàng téere yi ñuy tàmbalee ba mu yeewoo tuuti ci xam-xam la doora dellusi ci sëriñ moor anta sali booba nag ma nga paataar paataar nag ab dëkk la bu nekk ca kër xamadu yàlla gi nga xam ne fala la joor dëkkoon ndax daa bëggoon sëriñ moor lool jàppe ko sëriñam bu muy diisool ak di lu ci ay xalaatam moom sëriñ Mbàkke moon Anta Sali radiyallahu taala anhu sax bëggutoon a dëkk moom ndax xememul seen alal ak seenu nguur waaye maslaay njaboot yi moo ko dugal ci muy daaranteeg ñoom Lat Joor daana ko dëkkal fépp fu mu dëkk sëriñ bi itam daawu nangu ñu bokk benn dëkk ndax booba day jàng ak di jàngale te ñaar yooyu danoo sore lool ak nguur moo tax mu daa ko dëkkal ci wetam ba bu ko mu mën a ñëw ci lu dul coona wala ak yeex sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaarala ko daal di dëkk ak waajuram sëriñ Moor Anta Sali radiyallahu taala anhu di jàng farlu lool ci mokkal ak xereñ ci li muy jàng ba mujj mu raw ci mboolem fànn yépp léeg-léeg daana dikkal xaadima jaxate kala booba moom daa dëkkoon ak Lat Joor di ko àtteel nekkoon itam ku sori lool ci fànni xam-xam yi rawatinag ak waxiinu arab ak woy nekkoon ku siiw lool ci rafet ay woy Sëriñ Tuubaa xaadala wallaahu maxtaarala ko nag daana ñëw ci moom ngir di siw siwi waxiinu arab léeg mu àndaale ay bayit yu mu def jox ko ko mu xool arab bi ak naxu bi ak waxiin wi léeg-léegi moom xaadi ne ko nii la gëne ba mu jubb ko sëriñ bi wane ay bayit danaan kon andi ma mokkal ko waaye bi nekk lu nuy wérlu noonee la sëriñ bi àndoon ak xaadi ma jaxate kala waaye jàngalu ko ci moom benn téere ba tey Cheikh Mouhamadul Amin Diop moom Serigne Ahmadou Diop moom Dagana di wax ne am na benn boroom xam-xam bu nekkoon njaañ tudd Mouhamed bun Mouhamedul Karim bokk ci bannu daymaan ngirub doomi Sidi Fadil ci abu Mouhamedul Yaddaali yi la bokk boroom Sahbul Ibrish ci tafsir ndax yeddaa lii moom ci daymaan la bokk waaye mu yàgg la Sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu nag daana ñëw ci ñoom di jàng xam-xamu bayaan ak xam-xamu mantiq wallaahu aalam bi sëriñ Moor Anta Sali radiyallahu taala anhu xamee ci moom ak kawe ci xam-xam ak sawar ci li jàng ak mën laa bire la ko féetale la ëpp ca jàngal ma daana ko jàngal ab bind ci téere bi mu toll bind boo xam ne jàng ko moom sëriñ bi wala beneen téere bu mu jàngul ngir bu boroom xam-xam boobee ñëwee mu mën ko ko jàngal ngir wóolu xam-xamam akub déggam loolu tax ñu bari far doon jàng ci moom sëriñ Moor Anta Sali itam radiyallahu taala anhu gërëm loolu lool ba tey bi nga xamee ne Lat Joor jóge na kër xamandu yàlla googu mu nekkoon dem sukkeer gi dëkk bu mag ca Kajoor la ànd ak sëriñ Mbàkke Moor Anta Sali radiallahu taala anhu mu sanc ca wet ga tudde ko Mbàkke Kajoor am fa ñaari at door a làqu ci atum wasasin weeru tam xarit la làqu Cheikh Mouhamadul Amin Diop moom sëriñ Ahmadou Diop moom dagana nee na mas na maa dégg ci sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaara lahu mu naan bi sëriñ Moor radiyallahu taala anhu di waaj a làqu sëriñ bi toog na ci wetu boppam wàcce kaamilu alxuraan bisub altane mu làqu ca guddeeg talaata googee ñu yóbbu ko deqale gi nga xam ne ab dëkk la ci dëkk yu ndaw yi nekk kokke ci wetu Bàkkol sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaara lahu nag àndoon na ca denc ba doon dox ak ñaari tànkam léeg-léegi am ku bëgg mu war aw fasam di ko gaar mu ne ko dox ak samay tànk dama gënal ba ñu dajee foofe mbooloo ma bari lool ba jéggi dayo lañu jiital sëriñ Tayba Mohammed Ndumbe Marsil ngir mu jullee ko insha allah danaa ko tudd bu may andi mag yi seere ci moom ba ñu noppee ca denc ma nag la sëriñ tey ba wax mbooloo ma ñu diglu te ànd dal ba ñu ko defee mu waar leen ñoom ñëpp jaale leen sëriñ bi noppalu gën a jagleel sëriñ bi ak tudd ne Ahmadu Bàmbal Mbàkke yi ndax noonee la daan ko tuddee boobu mu ne maa ngi nii booba moom sëriñ baax xaadala wallaahu maxtaarala woo nag ma nga fajatul mbooloo ma mu ne ko jegeel mu jege tuuti ba mu koy gis di mën a dégg li muy wax moom it muy mën a dégg li muy wax ci lu dul kàddu gu kawe ndax booba day bañ a déggat mbooloo mi ngir ay teggiin ak wor worma yi nga xam ne sëriñ bi làmboo ko mu ne ko jegeel mu ne ko maa ngi dégg sëriñ Tayba Ndume Maar wax sëriñ Tuubaa xaadala wallaahu maxtaarala fu ne ko ñoo ngi lay jaale sa waajur sëriñ Moor Anta Sali radiyallahu taala anhu na mu gën a rafete ne ko nag damay sàkku ci yow nu ànd maag yeneen mag yi seet man nu dem falat joor jaale ko ko ba ab sedd ndax moom kat xaritam la woon nekkoon itam ab sëriñam bu muy diisool bu nu demee nu xamal ko sa taxawaay samp la fa moom mu teg la fa mu ko tegoon bu boobaa aw yiw képp nga ciy gis lii moo di sama am na yow Ahmadu Bamba lan moo di sa xalaat kon mbokk yi fii la ñuy taxawani ci seen émission jaar-jaari xaadimu rasul képp ko xam ne bëgg nga xam tontub Serigne Touba ci wax ji ñoo ngi lay jox dig daje ba beneen yoon di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbàkke sunu borom subhanahu wa taala yàggal ko fi lool ba mat li mbooleem ay yéeneem ak ay naalam ci liggéeyal xaadimu rasul noonu lay siyaare bu baax sama sëriñ sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ibnu sëriñ Cheikh Mbàkke ibnu sëriñ Moustapha Basiru ibnu sëriñ Basiru xaadim rasul mbokk yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ bi dana sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal